sëriñ Jili Mbacke di doom ci sëriñ Modou Mamoun Mbacke taawub maam Cheikh Anta Mbacke mi ngi gënee àdduna ci dëkk bii di Darou Salaam ci ant 1942 bi mu gënee àdduna waaye juróom sëriñ Modou Mamoun moo ko duppee sëriñ Abdoul Khadir Mbacke imam bi mu matee dal jàng mu ko ci loxol sëriñ Assane Diané sëriñ Assane Diané nekkoon na jàngalekat fii ci Daaru Salaam lu ëpp ci njabootu sëriñ Modou Mamoun gi moo doon jàngal xaritu sëriñ Abdourahmane mbake ak sëriñ Maam Mor Sikaab ñoo ñëpp doonoon ay magam sëriñ Jili Mbacké ginnaaw bu mu noppee gis waajuram ci la le 26 septembre 1969 ci la takk ak laxasaayam ànd ak magam ji ñuy wax sëriñ Modou Rokhaya mbake mi jëkk a wuutu sëriñ Modou Mamoun ci toogaayam bi sëriñ Jili nekkoon ak moom ba mujjoon sax mu doon doonoon ku yaatu lool te bëgg aw nit xam àdduna lool te silvisé ginnaaw bi la tàmbalee yaatal ay jéegoom dëkk ca dëkk bee nga xam ne moo di mbuur Serigne Abdoul Khadir mooy ki ko delloo si waat fii ci Sénégal ginnaaw bu mu ñëwaatee Sénégal nag la daan tàmbali di dem ak ñëw di dem ak a ñëw ba ci le huit septième mois mille neuf cent deux mille quatorze le huit septième mois deux mille quatorze ci la euh, magam ju baax ja di sëriñ As Gédé Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon ñetteelu xalifa sëriñ Mudu Maamun ginnaaw bu ko sëriñ Mudu Roqaya doone sëriñ Amidun doon ko sëriñ As Gédé doon ko ci euh, ginnaaw bi nag la sëriñ Jiili nekk ñeenteelu xalifa sëriñ Mudu Maamun jóge France ñëw fii njabootuk sëriñ Mudu Maamun gépp maa si jox ko seen bopp mu jiite leen jiite na liggéey bi def fi nag ay réalisation yu am solo xam ngeen ne bokk na ci li nga xamante ne bii mooy yeesalaat kërug daaru salaam gi ci loxoom la amee waaye yeesalaat itam jumaa yi Serigne Touba bi nga xam ne moo di daaru salaam ci këram la amee waaye itam fii ñuy wax daaray kaamil ci loxoom la yeesewaat waaye itam nag eh, Serigne Jili nekk na koo xam ne jiite na addiyee daaru salaam ji ba ci atum eh, deux mille vingt et muy janvier bi deux mille vingt et un addiyee na ci loxoom mu yëkkatiwaat ko ci ko ci loxol rakkam di Serigne bo Mbacke wér di daal ko mu ne ko maa ngi dem Dakar ci ñëw ci la yàlla dogal mu wàcc ab liggéey eh, eh, tey jii eh, ci talaata ji fii ci ca hôpital principal ñu war ko denc Daaru Salaam ginnaaw bu ñu julee takkusaan ba noppi Serigne Jili mi ngi gane àdduna le 27 janvier 2021 ci la wàcc ab liggéey mi ngi doon xalifa Serigne Modou Mamoun le 8 septième mois de 2014 mi ngi wàcc ab liggéey le 27 janvier 2021 euh, mi ngi gënee àdduna euh, ci 1941 kooku moo di Serigne Djili Mbacke yal na yàlla yokk ay leeram te